billahi min asheytaani irrajim bismillahi rahmaani irrahim sallallahu ala muhammadin bisi fasahati lisaani habli fasahatan wa nawiran aqli wa bi mutahari janaani lisrahi sadri wa anni kulla durrin safihi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Baye Galas noo ngi lay nuyu ci turu sëriñ Cheikh Abi Mbacké mi nga xam ne moo jiite kër Soxna Astou Mbacké mi tax nu teew fii tey am nuyum wax na ne mi ngi koy tàmbalee ci kilifa yi cheikh Mouhamadul Mountakha am cheikh Mouhamadul Bachir mi toog a jataayu xaadimu rasul yàlla na sunu boroom tabaraka wa taala def mu yàgg koo toogee te mu dolli ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër nee na mi ngi ñaan boroom bi dolli ko kàttan ba mu àggale yéeneem ci lislaam àggale yéeneem ci ñoñ lislaam te àggale yéene taalibe ci moom nee na mi ngi nuyu njabootu Cheikhul Khadim gépp di nuyu itam borom kër gi sëriñ Abou Baraka Mbàkke moom Cheikh Moudoul Fadal ak mboolem njabootu sëriñ Falilou di nuyu sëriñ Abdul Fattah mi nga xam ne moo yore kaddu njabootu Cheikh Mamadou Fadal ak mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Fadal bàyyiwul kenn mi ngi nuyu ñëpp ci nuyu yooyu mu wax ne mbooleem ñi teew ci tant bi góor ak jigéen mag ak ndaw mi ngi nuyu ñëpp nuyoo boobu nag sañ nañ koo yëkkati teg ko ci loxool sëñ Ahmadul Badawi moom Cheikh Mamadul Fadal mii nga xam ne moo fi teewal sëñ du Fatah te yàgg koo def yàlla na ko gën a yàgg def ci barkeeb sëriñ Touba sëriñ Cheikh Abi la mu la waxoon ca woote ba kàddu yooyu rek lay feddliwaat nee na mu ngi lay cant fa ak cant tàmbalee ba fa muy yem bu xamoon sax baat bu gën a kowe cant ca lay tàmbalee ndax lii nga def mooy dundal li nga fi fekk mbooleem njabootug Sëriñ Falilu cër bi nga xam ne yëkkatiwoon nañ ko jox ko soxna Abi loola rekk nga dundalaat tey te nag loola Serigne Abdou Fatah da caa dox jéego bu rëy ndax moom fi mu tegoon soxna abi ak li mu ko mayoon ci boppam loola nit mun ko wees ci mbokkam lépp loo xam ne jigéen dana ko seq ak càmmeñam soxna abi seqoon na ko ak Serigne Abdou Fatah loolee nag dafa mel ni moom nga dundal tey te loole itam sa yëpp du futaat di caa def loo xam ne daa firndeel yéeneem ci jëf jooju ndax lépp lu mu tegan ci loxol soxna abi bi fi soxna abi nekkatul ci saaxir lépp da koo teg ci loxol soxna njaxat mbàkki mii loolu kon mooy wone ne maywul bopp roccu làmmiñ sëñ ab seex ak Abi wax na ne mi ngi ñaanal sëriñ Abdou Fata yéeneem yàlla na ko ko yàlla yeggaleel ci barkeb sëriñ Touba wax na ne bés bi yegg na ko foo xam ne bu dul woon ngant mooy teewal boppam fii ànd koog yéen waaye loolu nag li koy firndeel mooy délégation bi mu tànn boole ko ak nun boo yëree délégation boobu danga xam ne la mu wax moo ne ci moom bi ñuy ñëw boole nañu ak njabootam ak njabootu sëriñ Abibu ak turandooy soxna Abi ak ñu yaroo ci kër gi ñépp délégation boobu sëriñ Seexul Xadim doomam jiite ko ànd ak ay rakkam sëriñ Abdou Lahad sëriñ Abdou Rahman sëriñ Maam Balla sëriñ Baye Jili sëriñ Mudu Mbakke ak njabootu sëriñ Abibu Mbakke moom soxna Abi ci njiitul sëriñ Abdou Mbar ak sëriñ Soaybu ak sëriñ Cheikh Mbakke ak mboolem taalibi yi nu àndal di ay jëwriñi mbooloo yoo xam ne ñu ngi ci biir ñu ànd ak sunu jur yi nga xam ne ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñoo ànd ak soxna njaxat mbàkke bintu Cheikh Abdou Lahad soxna abi galas mbàkke bintu Cheikh Amadou Fadal soxna kunta mbàkke bintu Serigne Moustapha Fadilu soxna abi mbàkke bintu alxaaji baara fàllilu soxna abi mbàkke bintu sëriñ abdu mbar soxna may mbàkke bintu sëriñ aboo baraka fadilu soxna fatija mbàkke bintu sëriñ mustapha mbàkke fadilu soxna abi mbàkke bintu sëriñ abdul fatah fadilu soxna abi mbàkke bintu sëriñ seex colle soxna abi mbàkke bintu sëriñ murtada fadilu soxna abi mbàkke bintu sëriñ Mouhamadou Xabbaan Mbacke Fadilu soxna Abi Mbacke bintu sëriñ Jili Mbacke Fadilu ak soxna Abi Guèye bintu soxna Ami Cheikh Mbacke Fadilu ak soxna Ami Mbacke bintu sëriñ Ibra Xujja soxna Mbeen Mbacke moom soxna bintu Mbacke Abdourahman soxna Astu Cerno bintu sëriñ Cheikh Abi ak soxna Baali Mbacke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Abdou Mbar ak délégation daayira Ndindi ci njiital sëriñ Aliou Diouf délégation daayira Touba ci njiital sëriñ Abdou Pouy ak bokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal ñëpp kenn desul loolu mooy wane ne sëriñ Cheikh Abi li mu wax ne bu dul woon ngànt moo fi teewal boppam loolu doy na ci firnde loolu nag mooy délégation bi nga xam ne ñoo ànd jóge ci sëriñ Cheikh Abi ñëw wuy si la fii sëriñ Baye Galas kàddu yi ci des bu noppee ci waxtaan wi sëriñ Abdou Lahad moo koy jottali kon ni ñuy def rekk mooy fas yéene tënk ay kàddu ci li waral bés bi bés bi man li may jëkk a def mooy sant sunu boroom subhaanahu wa mi nga xam ne moo ma may ma mën a yéggale sama yéene ci bés bii ndax bés bi alxaaji njaay wax na léegi ne ñu ngi ci fanweeri at bi ma amee fukki at yàlla dogal ma tàmbali ko woote te yàlla damaa na toowoon saa yu ma ko wuutee saa yu ma ko wootee wuute yàlla may ma tey ma man fee teew loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax ba noppi nag di jéggulu sëriñ Baye Galas bu baax am na ku doon wax léegi ci moom ba wax ni ku am kóllëre la waaye loolu dama koy dëggal kóllëre googu moo waral saa yu bés bi jubsee mu woo ma ne ma sa bés ba ñëw na mu ñëw woote ko ba noppi yàlla na tooma wuute kon moom ku ku am kóllëre la kuy def te yàlla tax ku ma jàppale la ndax jëf ju baax gor su ca nekk woo la dalaa bëggal njariñ lu toll ni loola loolu nag tax na mbégte mi ma am ci bés bi rëy lool di feddliwaat samay cant ci sëriñ Cheikh Abi ndax moom itam yàlla dogal na nii ma mën a àggale sama yéene mu ngi sababoo ci moom waaye moom it kóllëre googu ma wax rek moom lay sàmm ndax ca maam ya ca way jur ya ba léegi noog moom yàlla na ko yàlla àggaleel yéeneem waxtaan wi nag dama ci wuteeg sëñ Saaliwu Ñaŋ gis-gis ndax man bés yu demee nii li ma ciy ñaan mooy nu bañ koo yàkkamti bañ koo sorxo sorxo ndax yi ci daje bis bu mu dajee noonu lañ ko war a jàppee bis la boo xam ne mën nañ cee suuxat sunu pas-pas mën nañ cee fàttaliku sunu mag mën nañ cee amee loo xam ne danoon dolli jom loolu nag bés boo ko mën a amee waroo koo gaawtoo bés yu mel nii damay wax ne daara la te daara dañ ciy jànge waaye diisu ci xawaare Sénégal day réew moo xam ne li ci yàlla def bu ko waa réew mi xamoon jàmm rek ay am te bés yi ñuy def ak jataay yi ñuy amal bokk na ci tax waa réew mi mën a xam li ci réew mi kon noo ngi ñaan mu yàgg di am te nuy gën a bàyyi xel jublu gi am na loolu ku koy woote di ca dajale mbooloo am loo leen di fàttali ñàkkul la ci jublu defe naa ne jublu gi nag weesuwul bëgg nu xam ne am na nu ay royukaay rawatina nag bu ñu tànnee koo xam ne sëriñ Touba ak maam Thierno Ibra Faati ñoo ko seq muy ku am taarix ku am askan ku ñu mën a waxtaane mu di soxna Afsatu Mbàkke bintu Cheikh dul Fadal ak soxna Aysatu Mbàkke Thierno Ibra Faati li nu war a jëkk bàyyi xel mooy li ëpp solo ci waxtaan wi nu jéem cee roy ndax bu fekkee lépp lu ñuy war roye doomu aadama ci xam-xam ci jikko ci yar yàlla dajale na ko ci moom rawatina ak ak taalibe akuk tarbiya te loolu moo ëpp solo ci yoonu murit te moom soxna Afsatu mu doy ci sëkk ab royuwaay kon bu ñu ko dee fàttaliku ci jamono jii nga xam ne yi ñuy jaawale dafa bari yi ko nuru te doonu ko bari ba noppi nag buñ ci dee fàttaliku ku mel ni soxna Abi Mbakke la ca gën moo di def ko ab modèle te jéem koo roy rawatina bi nga xamee ne fii ñu koy fàttalikoo ñi ci ëpp mooy seen bàjjan ñenn ñi mooy seen maam kon jaadu nañu xam ne am nañu royuwaay bu mucc ayib yàlla def muy ku neex a waxtaane waaye muy ku naqaree waxtaane ci waxin ne naa la doomi sëriñ Touba ak doomi maam Thierno ñoo ko seq te ñoo di mu Mamadou Fadal ak soxna Astou Thierno damaa jëlale Cheikh dul faadal waaye soxna Astu Cerno rek doyoon na waxtaan wi ndax moom yàlla dogal na ñaari nga ko seq muy maam Cerno Ibra Faati ak soxna Marème Balla Sill soxna Marème Balla Sill Serigne Merina Ahmadou Ndumbe Mar kon moom ñoo ñoo ko seq yàlla dogal mu bokk ci njabootu maam Cerno gu mag gi feeñe fii ci Tuuba dëkk bii di Tuuba ñi wax ne moom ak Serigne Cheikh Awa Balla sorewuñu ak feeñ bi nga xamee ne feeñ na ñu tudde ko soxna Aysatu bintu sidina Abubakar radiyallahu anhu mi bokkoon ci njabootu sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa bi mu matee dal waaye juróom maam Cerno Ibra Faati dalal ko jox ko Serigne Socé Ndiaye Serigne Socé Ndiaye ñi xam Daaru Muxti mën nañ ne moo doon sëriñ daam abdourahman loo moom moom mam Cerno Ibra Faati bari na ci njabootu mam Cerno Ibra Faati ñoo xam ne sëriñ soo soose njaay moomu moo leen jàngal alxuraan mu jàngal soxna si alxuraan jàngal ko xam-xam bi mu matee dem kër sëriñ Touba moo digle ñu jox ko sëriñ Fallou wax nañ ne way juróom maam Cerno da koo booleeg maam Cheikh Anta ak magam Cheikh Moustapha ñoo ko indil Serigne Fallilou Serigne Fallou andi ko ndindi mu di fa liggéeya booba ndindi di daara soxna astu dib dongo bu xam la muy wut daara ji metti lool waaye moom itam mu takk mu laxasaayu rek takku liggéey bi metti na natt yi bari na waaye mu di jullit bu mën a muñ bu dëkku lépp lu ñëw mu féetale ko ci yàlla sunu borom wax nañ ne foofu ci nit ñi am na fi ay jant yu feeñ ci moom waaye yàggul rekk jant yi dal di so nga xam ne mujj na sax bu tolloo ci jamono jooju waaye juróom soxna Maram Balla Sill day ñëw ci sëñ Fàllu di wax rekk ak moom lu ne mu di ko jox sëñ fallu ndax rek ragal na ne fii mu toll bakkanam mën na mën na cee xaj nee na sëriñ Fallou ne ko nan ko déey sëriñ bi bi ñu ko déeyee sëriñ bi leeral ko ni mu demee sëriñ bi di leen ne bu tolloo too foofu nañ ma ko indil moo tax ñu wax ne at moom ba loola ñëwee sëriñ Fallou dafa jël soxna aw buso ak sëñ Mun Njaay Binta ak sëñ Mbay Sàll ak ñeneen boole leen ak soxna Asu Cerno ñu yóbbu leen njaareem ci sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi da ko féetali ak soxna Fatima du maam way juru Cheikh Amadou Bachir mu ne foofa waaye nag diir ba diir ba mu fa nekk la mu doon liggéey mooy sëriñ bi da koy jox fukki kilo yu dugub yoo xam ne moo koy soq toppatoo ko defar ca cere diir bi mu nekk njaareem bépp loolu dafa fa nekkee ak sëriñ bi at mi nga xam ne ci la soxna abi feeñ moom itam wax nañ ne sorewul ak alxaaji baara moom sëñ falu waxtu wa mu feeñee maam xari mbar mi nekkoon ci kër gu mag gi moom moo ñëw andi ko ci sëriñ bi booba sëriñ bi bu ñu dee indi ku ñuy tudd doo ñëw leewu toog ci kanamam nii ni ñuy def nii dañuy defar ci kanamam rek ñëw teg ko fa dem bu noppee wootee bi ñu ko indee moo ko tudd tudde ko soxna Hafsa bintu Seydina Omar radiyallahu anhu bi soxna si ñëwee jël si ko mu wax leen tur bi ñu demee ñu des koo dégg di ko di ko di ko laaj tabar ci seen biir soxna faatima du maam ñëw di ko leerlu si sëriñ bi xamal ne ko naa Hafsa moom naa Omar bokkan ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne sax sëriñ bi baamu na seen ñaari tur yi nekk ci xëcc ak tuxfatu foofee ngir leeral ko soxna Fatima du maam bi mu demee nag ci la ñu xam tur woowu nga xam ne noonu lañ ko tuddee bi yàlla dogalee mu feeñ sëriñ fàllu sëriñ sëriñ Touba radiyallahu anhu dafa woowaat nag ñoo ñi nga xam ne ñoom la ko sëriñ fàllu boolee lan waxtaan ak ñoom joxaat leen ab dénk ñu dellu ci waat ko ci sëriñ fàllu wax na fa soxna astu lu yéeme ndax xamal na ko ne ko sama damaa xamal ne waroo woon am ku fi ne waaye maa ñaan sama borom mu may la ku fi ne ba am ñu fi ne ne ko sa doom jii dana fi nekk ba amul njaboot junj ko ca sax yoo xam ne ba loola ñëwee làmbatu amu ca ndax dal nañu xam yoon wa ñuy jaar daal di wax ñi ñi ko addi woon la ne bu ngeen demee ne leen sëriñ fàllu xafsatu mii sama péete la loolu taxoon na sëriñ fàllu teg soxna xafsatu fi mu ko teg nga xam ne daanaka rakk ko jàppe woon bi ñu dellu see nag yàlla dogal na soxna astu cerno sëriñ fàllu indi ko Tuubaa mu féete sëriñ fàllu fu bari nag nekkoon jëmm joo xam ne ni ma ko waxee ci njëlbéen gi rek na mu nekke woon ca daara ja noonee rek la nekke woon ci biir kër gi nekk di ab taalibe nekk di as gor nekk di ko xajoo mbooloo mi fu ne mu féete fa Sëriñ Fàllu fu baree baree bari jaxasoog mag ñi rawatina waa kër sëriñ bi di ab yarekat bu yar ay mbooloo waaye ci lan leen di yar ci diine ak ngor nekkoon ku rafet jikko ku ragal yàlla ku xajoowoon ñépp diggante mag sëriñ Fallou sori lool mu bari ñoo xam ne yaroo nañ ci këram la lañu wax ne maam astawaalo daan na ko def yar nit ba wóolu jikkoom duggalaat ko ci kër gi loolu lu ci soxna asu cerno def diggam ak sëriñ fàllu kenn xamul nu mu toll defe naa ne am na ci mbooloo mii koo xam ne mat na ci seede sunu waajur wëlee yaay soxna Fall bokk ci ñi yaroo ci kër gi sëriñ Fall soxna asu joxoon na ko sëriñ fàllu mi ngi nii ànd ci délégation bi te du moom rekk ñu baree bari la bari na ci njabootu Serigne Fallou ñoo xam ne foofu la ñu foofu la soxna Astu jaar ak seen wayjur mu nekkoon koo xam ne dafa dëddu àdduna doylu tabe xaman ak bokk te man koo jokk yaatu lool te yaatal ñépp soxna Astu moomu nag mooy waay juru soxna abi Mbàkke mii ñu séddee bés bi tey moo tax ma ne moom rek doyoon na waxtaan kon dañuy xam ne soxna abi dafa judd ci ngor ak jom ñu yar ko ci lislaam tàggat ko ci jikko yu rafet xamal ko àddina nu gis ne kon moom dafa amal ndono lu tege ci loxoom ñu bàyyee ko ko mu am pas-pasu yokk ko yaatal ko sellal ko moo tax mu def ci yitte jim ci def ba sàmm ko ni mu ko sàmmee boroom xam-xam yi ñoo wax ne yàlla bu nammee mbir faaw mu waajalal ko ay sababam ida araada allahu amran hayya alawul asbaab soxna abi bi yàlla nammee ci moom cër bi ak melo wi ak li mu dajale ci moom la ko waajale li koy sabab mu yaari way jur yu di sang yaari way jur yu ràññeeku yaari way jur yu mucc ayib te ñoo di Cheikh Maodul Fadal moom Cheikhul Khadim moom Serigne Mor Anta Seli moom Maam Balla Aïssa moom Maaram Mbakke ak soxna astu cerno moom cerno ibra faati mbàkke moom sëriñ mor anta sali soxna astu cerno moom soxna marem balla sill moom sëriñ marina sil moom sëriñ ahmadu ndumbe maar bu nu seetloo ahmadu ndumbe maar ak sëriñ momar anta sali ak sëriñ mouhamadou bousso ñett ñii ku ñu séq ñu séntu ci moom ak mat